sunu mbokk amateurs yi samedi 4 mars 2023 ñu ngi fii ci terrain Gaal Gui terrain gaal gi nag bëri na ay champion yu bëri fii nañu jaar Cité Fator fii la jaar Daouda Fall fii la jaar Mame Ndiambane fii la jaar Toubabou Dior fii la jaar Mbaye fii la jaar Manga 2 fii la jaar Docteur Faye fii la jaar Ambra Sarr fii la jaar ñii di bëree suba mi saakar rek rek rek fii nañu jaar ànd ak kan góor gi sama cameraman at ñu dugg si biir ambiance am na way am na fecc am na bésu kan la muy Thomas Faye teg fi 3 millions pour bëggal amateur yi Cheikh Sidi Matar yàlla na fi yàgg te wér daar yàlla na fi yàgg te ñu dugg ci biir. ñi nag ñoo fi nekkal san ndeysaan le grand promoteur teg fi 3 millions waa looy wax ci loolu. ah loolu kontaan naa ci kontaan naa ci 3 millions yi ñu ngi sant Thomas sant ko ko gërëm ko te kontaan ci moom. waaw jërëjëf kon wax ci Sénégal. Ah, ah, ah. nga xam ne préparé leen pour accompagner leen ci lutte sans frappe pour lépp. waaw kontaan nañ ci rek kontaan nañ ci wax dëgg yàlla. waaw jaajëf jaajëf. Tambour Major yaa ngi nii waaw waaw. ak ñu dugg si Diba waxoon nañ la ko de waxoon naa leen am na way am na tëgg am na fecc waaw waaw xoolal ma lii kii di dugg si moom mooy X9 yaa ngi na def ay jorole si làmb ji day sànn kii nag moom mooy X9 mi ngi def ay débat débam di ñaan pour dugg si day sànn xoolal ma lii rek waaw waaw day sànn mi ngay dugg si waaw jaay watee njom jegede bes kayo fa njom no mbapto sigi jaay watee njom jegede bes kayo fa njom no mbapto sigi jaay déglu Mbabdo Sigi Ndiaye wote. ñoom yëkkate bés nga yow ma déglu Mbabdo Sigi Ndiaye wote. xanda bin mola Senghor Jarka Biram Jembe ko sala no jóge. jóge kii nag moom may Malick Ngom li fi waral yëpp moom la wax dëgg yàlla waaw waaw ndeysaan kii nag moom may Malick Ngom wax dëgg yàlla ñi fiy bëre yëpp avant ñoo bëre moo leen wax ne diw mooy tasantax kii diw mooy tasantax kiw waaw waaw maa ngi bëggee di la ziar ndeysaan ñi ñooy waa CNG bu lamb defaroo ñoom la bu yàqoo ñoom la waaw waaw waaw waaw xaaral ma dugg nag laaj leen ndeysaan waaw ñu ñoo fi toogal CNG di góorgóorlu di jéem a defar làmb waaw am ci yaakaar bu baax que dana baax bu baax a baax incha allah waa Sénégal pare nañ pour accompagner leen ci distance frappe looy wax ci mais rafet na rafet na parce que lépp looy def rek nit ki ñëw jóge fële naa daf la ciy jàppale dañ koy rafetlu di leen di encouragé encore une fois. jaajëf jaajëf kii nag moom may Thiaka Faye la grand champion keroog te Adrien Senghor ndeysaan nga perte finale bu la métti ci diggante double moteur. waaw waaw waaw mais après dama sant waat yàlla rek parce que dama bëggoon gagné yàlla mooy maye may na ko ndam bon damay muñ rek nekkaat si terrain bi liggéeyaat quoi. mais naa dimanche bi ci topp yow yaa ko jëlaatoon ax même même adversaire. waaw waaw waaw noonu la fa demee parce que li ma la wax la rek yàlla moo xam kii jël ñun dañuy ñëw ut rek waaw. waaw léegi ci biir ci biir drapeau yi nga jël yëpp yow ban drapeau nga fàttali yow moo la si gën a neex. non yëpp ñoo ma neex parce que dem final rek dafa neex waxu mala nag bu ma dem naal rek neex na ma. Ah. am na lu ma waxoon de. ba ngay jël drapeau Modou Lo di daal di Ada Bargny. waaw waaw nga ne loolu mooy neex. moom neex na ma trop parce que lu ci moo bari le Sarène roi de Sarène waaw loolu moo ci neex ba tey drapeau baa ngi ma gardé. ah ba léegi yaa ngi ko gardé maa ngi tey nga ñëwati fi am na fi ay surprise fi nekk de ay grand mbay. ñooñu lay wax. waaw sant yàlla rek bon ñaan yàlla mu may ñu wér ñun ñëpp mais maa ngi ñaan mu may ma mu doon sumaar rek ma jëlaat ko waaw. kon lay wax suñu site bi Sénénko. Sénénko a ah, ñaanal leen rek mu dem ba doon télé bu gën a mag ci senegal waa jaajëf moom moom mooy Sidi Makhtar wax si moom. waaw siñ Sidi Makhtar ñaanal ko yàlla rek. kattan bi mu am ba samp télé bi mu am bu ko ba def ko tele boo xam ne mooy mag ci réew mi yëpp waa waaw ah, kii ne mooy Thiaka Faye le grand champion à suivre. yow jaajëf. kii mooy grand champion grand Mbagnick. amul lu mu fi deful. wax dëgg yàlla kon tey noo ñëwee ak looy wax say supporter waaw comme d'habitude rek ñëw rek pour yàlla may ma ndam rek incha allahu rabi ndax waaj naa ko ak samay mbokk waaj ko compétir xam nekk si àll bi di compétir ba yàlla dogal ma ñëw fi tey waaw. kon yow si àll bi yow kan nga mujjee daan. non fay laa mujjee finalu Djilor lambu Djilor bi passé damaa ñàkk final mais maa jël somon semaine bële passé quoi waaw. ah semaine bi yow ko jël. maa ko jël waaw. ndeysaan mm. waaw looy wax waa Sénégal site bi. waaw seen ko xam rek di leen ñaanal rek ngeen dem ba doon ay télé télé yu mag di leen ñaanal tamit gudd fan yéen ñi ko yor xam nga balaa télé bi di dox ñi ko yor am gudd fan ak wér mais tamit maa ngi leen ñaanal gudd fan ak wér. yow looy wax Ongué Ndiaye. ah Ongué moom kay ñun dañuy jël suñu mobilisation pour ñëw si lamb bi incha allah rek eh, lamb bi ñun ñoo ko mo waaw kon moom mën nga ñu wax fan la jógee Fissel wala Réfane wala Fatick. onge mu ngi jógee Ndaayaan quoi. Ndaayaan waaw. kon yow loolu nga koy digal. waaw mais est ce boo leen ñu di ñëw fii parrain bi nen la kii bi nen lañ jàpp maire. maire ba ay billets wala ay car yi demee noonu. non non kenn jàppuñu suñu bien suñu doole la ñuy rek ñëw quoi mais instant yii amuñu benn sponsor quoi. Ah. waaw ah, loolu nag du xew la ah, war na lañ jàppale. champion bii laa la. xëy di ko ñaanal yàlla may ku si nekk sa wërsëg nga dàq see rek ñu rafetal lépp te xam ne lépp sport la rek def ko fair play yar ak teggin di ñaan daal yàlla suñu borom mi nga xam ne moom moom lépp mu may ko ndam lu seddu guy yàlla te am nañu yaakaar ne dañ ko may incha allah. ban dëkk la mujjee bëre. mu ngi mujjee bëre Somone Grand Manick moo ko daan final foofu poids lourd même lamb bi passé bi amoon fi sa poids léger moom moo ko jëloon si kaw euh, Mbaye Faye bu Guéréo loolu nag la ñu ñëwaat pour pour doggale seen incha allah. d'accord moom ci poids lourd yi la bind wala poids léger. non mu ngi si poids léger foofu la bind. waaw waaw poids moo koy jël. ah amin amin. <laughs> wax naa ñoom wax nañ si wax nañ wax bu rafet si yow. waaw yow loolu ni wax. waaw man tamit li ñu wax si man rek ñoom laay wax si ñoom parce que ñoom aw ma seen fay ñu ngi may taxaw si côté Modou Mële këram laa nekk moo may defal lépp manqué wu ma dara Karim Mële tamit bu may dem làmba oto bi Lamine tamit waxi non bi ñii daal aw ma seen fay quoi. bilaahi. parce dama ko wax ni ne est ce que yéen seen dëkk di ñëw fii maire bi dina leen dimbalee ay car wala ay billet wala dara. waaw nun nag wax dëgg yàlla waa Ndayane loolu mooy suñu problème waaw nun bu ñu amee combat maire bi nag dina dina si jaaba waaye demewul noo quoi waaw maire bi nag dafa waroon a ñëw jël ay ay oto yu bari tegal nu ne supporter nañ dem. waaw waaye jàppale bi moom dafa des si côté boobu trop. waaw léegi est koo xam ne moom mooy responsable. war na lu mën a doxal loolu waa ndayaan moom xam nga rek ñoo moom suñu dëkk bi ñu dëkk dañu mënul a jàppale mbër man bu fekkoon ne dëkk boobu dañu mën a jàppale mbër man ins bi weesu naa fii waaye dañuy seedaan quoi bilaay walaay loolu la mais si bëre dóor bi ah. ñaata victoire nga si am waaw man def naa sept combat arène na defet laa am benn defet nga ah, ma daan waaw ah, kon si si dëkk bu nga koo mujjee bëreel ay dara ay dara ay dara karaara bu Thiès maa ko daan première site après ñu continuer nu njaax arbitre joko daan ma def recours ñu deloo ma daan bi. Ah, kon yow champion kon à suivre. waaw jaajëf. kii nag moom mooy Seegaan Jaxaaw ndeysaan tey mu ñëw Adrien tey mu ñëw Adrien ñu teg fi 3 millions yow lay wax si loolu. di si kontaan rek di ñaanal promoteur yi di ñaanal mbër yi teew si encore waaw di ñaan yàlla jël ko encore. kon lay wax say supporter. waaw di ñaan ñu xaar rek waaw ñaan yi. waaw incha allah. yow ci poids léger nga bind wala poids lourd. non poids lourd laa ñëw. ah loolu yëpp garaawul. Ah? garaawul lamb lañ wax quoi. Ah. waaw lan nga sa daal yow 3 yàgg sax. dafa yàgg lamb amul poids lourd ñëpp ay morom lañ. dama gis joxul jàmm. mais ku ma ëppee. grand champion yoo xam ne mooy loolu. non ku ma ëppee noonu doolu amul si géew bi non déedéet. si bëre dóor bi est-ce que am nga amoon nga si ay combat non non amaguma combat nag. Ah, kon yow da ngay compétir si mbapat bi. nañ mee combat yi mooy loolu noonu. day si waaw mais est que du si yow promoteur yi buñ la seetee. ñoo promoteur seet se wu ñu am na ñu ma doon woo ba léegi amuñu adversaire moo loolu noonu. Ah. waaw. kon yàlla baax na jërëjëf. waaw incha allah. beneen champion mi ngi nii nee na moom mooy aéroport aéroport est ce que mën nañ xam ne yow foo jóge. Robos. ah Robos Robos Medina. ah Robos Medina. waaw waaw mun kon de moom aéroport ba manqué Sow. waaw dëgg la waaw. moo tax Assane Ndiaye yow du la wutal ay combat. non pourtant ñoo ñuy jox de. xam naa combat yi xaw a noonu rek am naa combat sax. ah 18 waa waaw. yéen ak kan. maag euh, benn boy Pikine bu dëkk ginnaaw raay kon tey di nga ñëw pour compétir. incha allah waaw dama ñëwoon pour compétir waaw. ci poids léger yi nga bind wala poids. non non poids yi nga fi ay gars yu waaw affaire moom des fois noonu la day tombé lamb ko lamb yi ñoo bari ci àll bi waaw. mais nañ xam ñaata victoire nga am ci bëre ci bëre dóor bi. Oh, ñaari victoire la am waaw deux combats deux victoire waaw. deux moom mooy aéroport. waaw dëgg merci. est-ce nañ xam ne foo jugee egg si na. waaw si na maa ngi jugee Guédiawaye rek nekk xale xam ne xam di jàng bëre di compétir rek mooy loolu noonu la demee. waaw di nuyu monde entier quoi di bëggee samay supporters waa Guédiawaye surtout ma di ma jugee quoi di bëggee ñu may jàppale ñuy bëggee X9 ñëpp maa leen di bëggee di leen safoo di leen damoo quoi waaw noonu la demee. tey sa doomu ndey teg 3 millions looy wax. waaw 3 millions waaw di ko ñaanal yàlla xam nga 3 millions yi mu teg mu am si réussir ma lu mu jot ko si quoi waaw di ñaan yàlla jël drapeau noonu la demee. mais ci bëre dóor bi. waaw bëre dóor bi waaw comme gars yi mbër buy compétir rek duñ la nangoo jël dañ lay tege man laa mujj léegi xamatu mu nu mu demee noonu ko waaw kenn xamatul waaw. laamu ji léegi boo bëree simple rek ñu ne duñ la nangoo jël man du ma man nag mënu ma sama doole ba pare toog di xaar combat yoo xam ne ñëwagul quoi moo tax chaque jour damay nekk simple bi loolu moo tax boobu ba tey mënu ma am combat voilà demee. mais pour man dama defe na yow gars yi ñoo la ragal. waaw gars yi ndax man dañ may wax combat bañ ne la wala ginnaaw suba na ma combat bi taxaw na mais su demee deux jours rek saa waay day delluwaat avance bi mooy loolu. kii nag moom mooy Mamadou Dione responsable Adrien Senghor terrain gaz li nga yow lay waxtu loolu. waaw ginnaaw bi leen nuyoo sant leen gërëm leen maa ngi nuyu askanu séeréer di nuyu askanu Sénégal yëpp di jox ñëpp seen wàccuwaay waaye di jël nuyoo bi nag di ko jox sama papa Bekay Mbaye di ko nuyu bu baax di nuyu sama moo Modou Mbaye di leen nuyu yéen mi ndax yow sama xarit nga waaw. waaw léegi dafa fekk ma yor beneen site boo xam ne mii Sénéco waaw léegi nag looy wax ci loolu. Sénéco Sénéco loolu moom dina ma neex lool ndax nag lépp loo yor am naa ci yaakaar ne am ci njorte ne loolu dina dox ndax liggéeykat waar boo ko jox. mu doon fa exceptionnel te yow nga doon liggéeykat ñoo xam ne dañ laa ràññee à travers le Sénégal mais à travers le monde entier ci li ngay liggéey ci fula ak jom ak ngor ak mën vraiment nga doon un homme exceptionnel ma am contentement ak mag fu ma la gis ak foo mënti féete rek xam naa ne boo doxalee rek jàmm rek nga fa merci. ki nga xam ne moom moo ko moom muy Cheikh Sidi Matar moom moom seen ndox si lay wax si ah kooku sama sang kooku sama sang sama xarit la sama wasila la sama yaakaar la may wax ci moom ne rek lu mu def nii adduna la ko defal defalu ko Sénégal ndax nii rek adduna yëpp a koy seetaan taxaw rek di la ko ñaanal di ko ne rek yàlla na fu yàgg wér rek ànd ak jàmm e Sénégal am jàmm réew mi am jàmm ma am kontaan bu bu mag ci moom. di ko ñaanal jàmm rek xam ne lépp lu mu am daal yal ci jàmm jiitu kontaan nañ ci moom te lii mu def wax dëgg am nañ ci cofeel bu rëy a rëy merci waaw. waaw moo tax naa pare naa pour ànd ak yéen ci biir sans frappe bi ba saison bi di tëj tu vois pare na pour ànd ak yéen ci biir sans frappe bi ba saison bi di tëj. waaw di ba yow xam nga di da ngaa baax da ngaa baax. ànd ak sa caméraman bu baax bii. waaw góor gi gi. nga xam ne du son man def maa jaaxal sax parce que damay gis muy liggéey liggéey boo xam ne dama xam ne ndaw bu bëggee liggéey rek wàccoo nga ak yàlla ndax yàlla nee na jaamu yàlla commencé na ci bonk sa liggéey boo fonkee sa liggéey rek yaa ngi jaamu yàlla avant tout Diba loolu nga wax pare naa dañuy ànd ak yow ci loolu gunge la. sargal la takkal la te nga xam ne li nga moom ñoo ko moom. waa ñun déwén prépare nañ pour tëggal làmb ak sit bi incha allah ñun pare nañ pour tëggal làmb ak site bi mais Adrien Senghor. loolu moom sama yëfu bopp la ndax nag site bu ñëw te man ma doon communicateur traditionnel doon microcentral de la lutte simple site ñëw pour jàppale làmb. suqale lamb ñëw diisoog amateur yi promoteur yeeg ak lu lamb ak CNG loolu man la koy defal ndax man lamb rek laa fi nekkal comme lamb laa fi nekkal nag ngeen ñëw ngir suqale lam loolu moom su ngeen paree pare na bu ngeen pare wul pare na waaw kon madame Badiane dégg nga loolu kon boog dinaa si taxaw accompagner la pour loolu mun a am dégg nga kii lu wax mais mun nañ xam dimanche Adrien la wala terrain Gaal. dimanche suba Adrien la. ñaat nañ fa teg. et un million lañ ko teg mu doon lamb joo xam ne nag nitu lamb moo ko teg muy fan si club Mbaye Kalom Mbaye Kalom nekk Ndefleng FM 93 point 4 yor site bi nga xam ne moo tudd Mbaye Kalom TV suba nag lañ koy tegal lamb bu réew ci Adrien Adrien Senghor tegal ko un million waaye muñ ca de comme nitu culture la di nitu lamb dañoo woo saltige yi woo ancien mbër yi ancien gloire yi woo feckat yi woo woykat yi ñëpp fay daje suba kon suba bés boo xam ne c'est une journée historique boo xam ne lamb lañ ko defal waaye nag képp koo xam ne animateur nga wala communicateur wala nga doon journaliste bésu suba sa bés la du bésu mbay kalom bésu ñëpp la kon ñu invité la presse di invité Sénégal yëpp ñu daje fa suba incha allah jërëjëf Diba merci. mais Malick Ngom mi ngi nii moom moo arbitré woon Eumeu Sène Modou Lo moom nee na looy wax. kooku kooku jëlal ma ko. waa kii moom mooy Malick Ngom moo arbitré woon Eumeu Sène Modou Lo ndeysaan grand champion la ndeysaan loolu looy wax ci moom. Malick boo ma laajee ci moom dinaa ci sawar dafa yaru. bugg liggéeyam man liggéeyam doon un homme exceptionnel du tricher du dugg ci jaaxaan te liggéey biñ ko dénk dañ ko war a ñaanal yàlla gën koo jàppale ndax respecté na ko te bëgg na ko bu mu amee arbitre combat bi nga xam ne mooy Modou Lo Eumeu Sène am na li ko jiitu waaye nag combat boobu dafa doon combat bu fes boo xam ne da dafa tax adduna bi yëpp gën koo ràññe gën koo bàyyi xel ñu koy ñaanal yàlla mu gudd fan lool ànd ak wér bu doon xale bu yaru nag te mag wolof Njaay nee na gune bu setee loxo mën na ànd ak mag loxo ma set moo tax mu ànd ak mag bi kon yal na ko yàlla may jàmm di ba kontaan na bu baax. waaw jaay ma mën jot jaajëf jaajëf. ndeysaan kii moom mooy Doudou Wade mairie Biscuiterie tey sa doomu ndey teg fi 3 millions tuddee la drapeau. waaw mais xanaa sant yàlla julli ci yoon bi rek di gërëm di sant Thomas bi nga xam ne moo ñëw. fekk si ma di rakk ci baax a baax baax am lu ma yéene bëgg aussi ma duggante ak communauté séeréer bi mu tuddee ma làmb ji loolu ku ma ko defal moom defal na la lépp. Eh, ñu nekk maire nag séeréer si bari trop trop trop ci biir Biscuiterie yi bëgg leen wuti aussi lu leen neex bëgg waxtaan ak ñoom wax ak ñoom déggoo ñoom moo tax ñu fekk si leen ci lii. may sportif aussi moom muy sportif di ancien sportif te ñun sportif yi nit boo ci nekkee di ci nekk. war ngay xaar toujours sa reconversion Thomas nag ci reconversion am la nekk dafa jógee mbër boobu après blessure moo tax mu bàyyi moo reconvertir war a nekk war a nekk koo xam ne dafay dëgg ay làmb loolu nag ko ci jàppale bëgg nag mu mel ni Gaston Mbengue mel ni Don King loolu rek moo indi suñu ndaje ñu bokk beneen bëgg-bëgg muy moom mu jàppale président de la république ma jàppale président de la république xam loolu yëpp bu ñu ko boolee war nañu mën a ànd loolu rek moo ñu indi woon fii tey ñuy sportif aussi donc ba nag muy loo xam ne lu neex la parce que day permettre mbër yi ñu exercer wu di entraînement donc c' est la lutte en devenir loolu la ñu gis fii. loolu nag bo la ci war a indi suñu contribution pour wan nit ñi aussi ne ay sportif lañu nekkuñu ci football bi rek. kon c' est la première fois ñu tuddee le drapeau. waaw am na bu ñu ma tëralee woon biscuiterie daan naa si aussi ay mbappar booy booy bambara daan ko sax organiser la ndax dañu foog ñu xam ne booy bambara ancien lutteur ñun la dëkk ñu ñu faraloon ko yooyu daal nañ ci dugg mooy loo xam ne aussi xale. daan nañ ci foo yooyu mais nag mënuñu woon bëre ndax amuñu woon doole jooju <laughs> waaw. équipe bi nag. waa équipe bi mu ngi ci ñoom ñu ngi nekk en en national 1 di xeex actuellement ñu ñaanal leen rek waaw ñu ñaanal leen parce que addina moo demee noonu yenn sa da nga nekk ci kaw yenn saa da nga nekk ci suuf mais nag il faut savoir saisir les moments seet na ngay ñu ñun nag dañu nekkoon génération dirigeant ba nga xam ne dañu boole woon mbéq mbay léegi nag suñu wàll mu ngi waaj a beneen génération dirigeant moo ñëw moo tax man ma bàyyi leen ñetti at yëpp ma leen di seetaan ñu jéem ñu ngi jéem nag du juum mais ñu ngi rectifié ren yaakaar naa ne daal am naa ci yaakaar. kon pare nga pour jàppaat bu yéegaat. waaw maa ngi ciy jàpp mais de loin. Ah? maa ngi ciy jàpp mais de loin. kooku man ñëpp xam nañu moom ci léegi maa ngi ci làmb ji maa ngi ci athlétisme maa ngi ci leneen parce que la ma négligé woon ba ma nekk gu lay maire loolu nag loolu laa wara jël li maire yi moom ma seetlu ko ñëpp waaw loolu moo tax tey ma ñëw ci làmb ji maire bi jàppale làmb moo ko defoon ci football bi ñu ne dama ko def si nga xam ne maa ko moom leen bàyyi ñoom xale yi ñu jàpp ci mais ñu ngi ci de ñu ngi ci yoon xam naa ñu ngi ci yoon. mais boo ragal naa boo nekkoon au top jàpp si équipe dina dem. waaw xam nga jàpp dafa bari façon xam nga il faut ñu xam ne ñun lañ fiy jógee te dañuy bàyyi léegi nag euh, euh, bàyyi jógee fii loolu di continuer moo gën yow boo jàppalee lu baax. boo leen ni ñuy juum di faxasalu di defarwaat day mës baax xam nga ñun ci football bi lay wax rek ñu ne ñoom Augustin Senghor ak ñoom Abdoulaye Sow depuis 2009 lañ fi nekk faxasal ñu faxasal yu metti juum lañ fi juum yu metti mais élection yi passé bu ñu jàpp bu ñu bàyyiwul woon kon tey li ñu am duñ ko am mais juum ya ñoon juum ñoo jur tey ndamu tey ndamu tey xale itam dañu doon bàyyi ñu juum juum yi jëtaat yi ren bu ñu amee ndam ci kaw lañ jëm <laughs> tey bébé ama ndax Seexu Jeen bébé ama Seexu Jeen ndeysaan ñoom ñaar ñi ngi lewtoo tey madame Badiane moo am fit ndeysaan pare naa pour accompagne la de waaw waaw ci loolu ñu wax ñu ñaar j'aime ça ndeysaan ah, action waroon na am ndeysaan xoolal ma rek ma ngoon saa ira dina baax ndeysaan jeexu jën jën eh action am na ah bébé ama daan na ko daan na ko jël ba amul benn werante waaw waaw diggante Ablaye Ndongo ak Assane Diouf gi ndeysaan ah Ablaye Ndongo jël na ko eh wër nañ ko ndombo eh action am na ndeysaan action amagul de trois appels la def diggante Assane Diouf ak Ablaye Ndongo ndeysaan wër ndomb taxul nga daan ko de waaw waaw ah, Assane Diouf mu ngi koy xëccaat wëraat na ko ndomb a ah, bañaat na ndeysaan ndeysaan eh, Ablaye Ndong génn na dinañ ko jox avertissement siflewaat na diggante Ablaye Ndong ak Assane Diouf Ablaye Ndong jàpp moo gën a baax caxabal la wala tegal siège caxabal wala tegal siège a ah, tegal na ko siège daan ko Ablaye Ndong daan na Assane Diouf jël li amul benn warante ndeysaan c'est le doole doxul jàmm Bébé Ama moom moo ngemb bu weex bi féetoo à gauche Djibril Sarr ngemboo ngemb bu noir bi féetee à droite jiital pied gauche kee jiital pied gauche ñoom ñaar ñi ngi lewtoo ndeysaan diggante Bébé Ama ak Djibril ñoom ñaar ñi ngi ñoom ñaar jàppante nañu ndeysaan Bébé Ama fu mu jàpp moo baax jéem na ko ndenk jéem na ko caxabal mu bañ kon Bébé Ama am na benn Ablaye Sarr am benn ñoom ñaar jàppante nañu amaa am na benn avertissement Ibou am ñaar continuer nii bébé amaa dañ koy ah bébé amaa ah bébé amaa daan na ko ndeysaan doole doxul jàmm daan na amul benn wéren waaw waaw c'est le grand mbay gi nii ndeysaan ma ngay jàpp waaw waaw ndeysaan diggante caaka fay café ak mu ndeysaan Tony Junior a ngoog mu am caaka fay mu dee na ko daan jëli ba amul werante parce que moo am na trois avertissement caaka fay am deux ndeysaan waaw fii nag diggante X9 la ah X9 naa daan na ko ndeysaan X9 bëre rek lay def écurie Balla Gaye la bokk c'est moo tax kuñ ci jox avance am mu bañ kii nag moom mooy X9 ndeysaan diggante bébé ama ci quart de finale yi poids ndeysaan Grand Mbagnick ngay noonu diggante Bébé Ama ak Ablaye Seck ñoom ñaar jàppante nañu ndeysaan def na action Bébé Ama bañ eh, Bébé Ama daan na ko Bébé Ama daan bi c'est le meilleur wax dëgg booy bii du nit tey bébé Aba du nit c'est le maire c'est naa leen ko c'est le maire waaw waaw mais waa ji d'accordul de nee moom deful 4 appuis samedi 4 mars 2023 ñu ngi fii si quart de finale yi ci poids lourds yi diggante Thiaka Faye ak X9 fee Grand Mbagnick ak Thiaka Seck fee Tony Junior ndeysaan Caaka Faye à droite si neuf à à gauche ngemboo ngemb weex Caaka Faye à droite ngemboo ngemb bu ñuul bi cey bébé Ama c'est maire oh surprise yi mag ñoo nekk ndeysaan laa Caaka Faye Caaka Faye daan na si neuf ah jël la amagul Caaka Faye daan na si neuf jël ba amul benn werante Caaka Faye daan na jël ba amul benn werante waaw laa ilaaha illallaah daan na ko daan na ko waaw waaw daan na ko ji daan na ko boy bi c'est le meilleur waaw eh, ci demi-finale yi poids légers yi diggante Baye Fall ak ndeysaan arbitre bi mi ngi waaj a soufflé diggante Bébé Ama ñoom ñaar ñu ngi ñoom ñaar ñëpp ngemb bu weex nañu ngemboo ndeysaan Baye Fall a gauche Bébé Ama à droite bay Baye moom ñu koy wax mooy ñu doon wax sànq Baye Fall ak Bébé Ama Baye Fall Bébé Ama diggante Bébé Ama ak Baye laa ilaaha illallah action amoon na mais arbitre bi Bébé Ama daan na ko daan na Baye Fall jël li ba amul werante ndeysaan ma ngay fecc Baye bi c'est daan na Baye Fall mais Baye Fall nanguwul nee na moom trois appuis la ndeysaan ndeysaan caaka fee daan na Tony Junior jëli ba amul benn werante léegi nag ñu ngi préparé final yi ndeysaan Onge Ndiaye ak bébé Ama ndeysaan Onge Ndiaye moom moo ngemboo ngemb bu xonk bi bébé Ama ngemboo ngemb bu weex bi ndeysaan Ndiaye bébé Ama poids pour poids final poids lu caaka fay la ak siyaakal sec ndeysaan ñoom ñi ngi nekk def seen débat dépp nga Ndiaye bébé Ama bébé Ama jëm na cabaxal mu bañ san xale yu bëri rek nañuy def oh, action am na illa daan na ko jëlee amul benn warante donc nga Ndiaye daan na bébé Ama jël bi amul werante Ongué Ndiaye daan na Bébé Ama jël bi amul benn werante léegi nag arbitre mi ngi waaj a soufflé ci poids lourd yi diggante caaka fay siyaakal sec waaw waaw que le maire gagne ndeysaan ngi noonu waaw waaw diggante caaka fay ak siyaakal sec ah Caaka Faye nee na pare na ndeysaan arbitre bi nag lu règlement bi rek war leen la leen doon wax ndeysaan xamal na dóor amul dama baaraam amul matta amul ndeysaan loolu képp ko fi def nii dañ lay disqualifié jox sa morom victoire diggante Caaka Faye ak Siakal sek final poids lourd yi ndeysaan ndeysaan Siakal jël na ko mu bañ ndeysaan ndeysaan ñoom ñaar ñu ngi lewtoo képp kii bëggee Sénégal rek Diba mi ngi lay bëggee du nuyu équipe bi yëpp ndeysaan ah Caaka Faye Caaka Faye daan na ko Caaka Faye wër na ko nomb Caaka Faye wër na ko ndomb yenn na ko ba si kaw dóor ko si suuf ndeysaan doole doxul jàmm Caaka Faye jël na 3 millions yi daan na Siakal jël bi amul benn werante ndeysaan Diba moo leen fi teewloon ndeysaan Cheikh Sidi yàll fi yàgg te wér maa ngi bëggee madame Badiane di bëggee madame Mengone képp ki bëggee Sénégal rek Diba mu ngi lay bëggee ndeysaan góor gi le grand technicien grand caméra moom moo nekk nii Diba moo leen fi teewaloon caaka fay daan siyaakal ceek jël bi amul benn werante ndeysaan sunu mbokk amateur yi samedi samedi 4 mars 2023 ñi ngi woon fii si terrain gaal gi ndeysaan Thomas teg fi 3 millions ku ko mujjee jël nag moom mooy caaka fay moom moo daan siyaakal sekk jëli bi amul benn waran tuddee drapeau bi nag Doudou Wade maire de Biscuiterie ndeysaan divan nag moom moo leen fi teele woon ak équipe bi yëpp maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp képp kiy bëggee société bi mi Sénégal rek divan mu ngi lay bëggee maa ngi bëgg maa ngi bëggee Cheikh Sidi Matar yàlla na fi yàgg te wér madame Badiane sant góor gi mëngoone équipe bi yëpp maa ngi leen di sant kon boog ba beneen yoon wasalaam waaw. so